saboor saar téeméer ak fukk ak juróom ñeent aji sax ji sa kàddu lay bége ndokkle yow mi maandu di wee yoonu aji sax ji ndokkle yow mi wattu kàdduy seedeem di ko sàkkoo sa léppi xol doo def njubadi xanaa di topp fi mu la jaarloo aji sax ji yaa joxe sa tegtal yi ñu war a topp a topp yal naa saxoo di sàmm sa dogal yoon di teewlu loo santaane ba duma rus damay gëstu sa ndigal yu jub di la sante xol bu dëggu sa dogal yu yoon laay sàmm ngal la bu ma wàcce wàcc ana nu ndaw mën a sellale xanaa di sàmm sa kàddu sama lépp xol laa lay sàkkoo bul ma wàcc ma wàcc say santaane sama xol laa làq say wax ngir bañ laa moy jaajëfe yow aji sax ji jàngal ma sa dogali yoon maa àddu tari mbooleem lu sa kàddu digle topp say tegtal lay bége mbégtem jépp alal say tegtal lay jàngat di teewlu say xàll sa dogali yoon ma taxamti ko sa kàddu ma fat ba faw sang bi baaxe ma ma dund ba mën a sàmm sa kàddu nga la muril saay gët ma niir sa kéemaani yoon doxandeem laa fi kaw suuf bu ma làq say santaane fu ma toll maa ngi namm say ndigal ba sama xol ngiis rëbb nga ñu reew ñu alku ñiy dëddu say santaane musal ma ciy kokkalee ki xaste maa ngi topp sa kàdduy seede te it kàngam yaa ngi may tooge te may gëstu sa dagal yoon sang bi sa kàdduy seede laay safoo ñuy sama xejj yi may xelal maa ngi ne ñaay ci pënd bi musal ma yaa ko dige wax naa la samay jaar-jaar nga wuyu ma nga la xamal ma sa dogal yoon dégtal ma li sa tegtal yiy firi ma jàngat say kéemaan naqari xol sonal na ma may ma ndëgër laay yaa ko dige sorele maak yoonu fen te baaxe ma saw yoon yoonu war ma laataamu jàkkaarlook say ndigal ey aji sax ji dama langaamoo sa kàdduy seede ngal la bu ma rusloo sa yoonu santaane laay daw yaa may may xol bu tàlli aji sax ji xamal ma li sa dogali yoon yiy firi ma topp ko ba mu jeex may ma dég-dég ma topp saw yoon toppe ko xol bu tàlli jiite ma ci sa xàllu santaane yi mooy sama bànneex jooyantil sama xol mu féeteeg sa kàdduy seede te dummóoyu alal ju lewul may ma ma feneti caaxaani neen te musale ma saw yoon sang bi sottalal ma sa dige bi nga digoog ku la ragal mooyee ma gàcce gi ma ragal yaa baaxe ndigal maa ko namm say tegtal musale ma sak njekk aji sax ji yaa ko dige dikke ma sa jëfi ngor ak sa walla ba ku ma kokkali ma am tontam maa doyloo sa kàddu bu ma xañ mukk kàddu dëgg say àtte laa yaakaarkat maay topp saw yoon sàlloo ko saxoo ko ba faw di daagoo sago ne say tegtal laay sàkku maay àgg ay buur sa kàdduy seede te duma rus maay bége sa santaane yi ma sopp di yootu sa santaane yi ma sopp di jàngat sa dogali yoon bàyyil xel li nga ma dig sang bi moom laa yaakaar lii laay muñe sama naxar sa kàddoo may dundal nit ñu bew ñi ñaawal nañu ma lool waaye dëdduwuma saw yoon ey aji sax ji dama fàttaliku sa àtte yawoon daldi muñ sama xol daa fees ndax ñu bon ñiy wàcc saw yoon sa dogali yoon laay woyantoo fu ma mën a sance aji sax ji tudd naa la guddi di sàmm saw yoon lii laa séddoo maa topp sa tegtali yoon aji sax ji yow laa séddoo di diggee sàmm sa kàddu sama léppi xol laa sàkkoo saw yiw ngal la baaxe ma yaa ko dige dama seetlu sama jëfin dëpp topp sa kàdduy seede maa ngi gaawtu yeexawma say santaane moos buumi ñu bon ñaa ngi may laaw te sàgganewuma saw yoon xaaju guddi laay jóg di la sante sa attey njekk maa xejjoo képp ku la ragal tey topp say tegtal aji sax ji sa ngor dajal na àddina xamal ma sa dogali yoon aji sax ji def nga la nga dige woon sang bi defal nga ma ngëneel xamal ma ngëneeli àtte ak xam-xam maa doyloo say santaane maa jàddoon nga duma ma léegi sa kàddu laay sàmm yaa ka baax tey baaxe rikk xamal ma say tegtal ñu bew ñee yàq sama der ak i sos te ma topp say tegtal wéetal la ñu ngi nii seen bopp yi tafas te man may taxamti ko saw yoon ngëneel la ma duma yi jural ngir jànge naa ci say tegtal sa ngëneelu yoon wi nga digle moo ma gënal ay junniy xaalis sa kurus say loxo ma sàkk tabax ma may ma ak dégg ma mokkal say santaane ñi la ragal gis ma bég ne sa kàddu laa yaakaar aji sax ji ràññee naa ne say ndigal njekk la te wor ma nga ma dumaa ngal la dëfale ma sa ngor sang bi yaa ko digi nanga ma gana see sa yërmande ma dund saw yoonay sama bànneex yàlla nañu beew ñi torox ñoo ma lor ak seeni sos te man may gëstu say tegtal yàlla na ku la ragal wàññi ko fi man ba xam sa kàdduy seede jàll naa toppe say tegtal xol bu mat sëkk ba duma rus sàkku naa sak walla ba xol jeex di xaar sa kàddu séentu naa sab dige bëggat giim kañ nga may xettali dama mujj ras ni mbuusum der mu saxaar jàpp waaye sàggenaw ma say tegtal ñaata fan laay toogati sang bi kañ ngay mbugal ñi ma topp ñu bew ñi gasal nañu ma ay yeer yu saw yoon diglewul sa santaane yépp wor ma la te dees ma toppay sos balu ma nes tuut ñu sànke ma fi kaw suuf te man dëdduwuma say tegtal musale ma sa ngor ba jëfe sa kàdduy seede aji sax ji sa kàddooy sax dàkk taxaw jonn fa asamaan sa wor ma ba maasoo maas yaa samp suuf saxal ko ci sa ndigal la lépp taxawe ba tey lépp ànd di la jaamu su ma bëggeewuloon saw yoon sànkoo sama toskare ji duma fàtte mukk say tegtal ci nga may musale yaa ma moom wallu ma say tegtal laay sàkku man lañu bon ñi tëru nar maa sànk waaye sa kàdduy seede laay niir gis naa ne lu mat lu ne am na kemu waaye sa santaane mat ba weesu kemu maa ka sopp saw yoon di ko jàngat bés bu jot li ma xelal ba raw noon yi mooy sa santaane yi ma jagoo faw maa gën a ñaw képp ku may jàngal nde sa kàdduy seedey sama njàngat maa ëpp mag ñi dég-dég nde say tegtal laa topp luy yoon wu aay ma moyu ba mën a sàmm sa kàddu say santaane it dëdduwuma ko nde yow yaa ma jàngal sa kàddoo ko maa neex ba dàqal ma tem-temu lem say tegtal laay ràññee ba tax maa bañ luy yoonu fen sa kàddu laay niitoo samay tànk muy leeral samaw yoon giñ naa te di ko dëggal ne dinaa sàmmoonteeg sa ndigali njekk toskare naa ba ci lool ey aji sax ji musal ma yaa ko digi aji sax ji rik nangul ma kàdduy cant yi ma lay jébbal te xamal ma say ndigal sama bakkan ci xott saa su ne waaye fàttewu ma saw yoon ñu bon ñi ma gasalum pax taxul ma wàcc say tegtal maa seddoo faw sa kàdduy seede loolay seral sama xol dama dogoo jëfe sa dogali yoon saxoo ko ba mu jeex maa bañ kuy ŋarale maa sopp saw yoon sama rawtu sama kiiraay yawa sa kàddu laay xaar yéen ñi def lu bon xidi leen ma ba ma sàmmoon teeg sama santaane yàlla yaa ko digge dooleel ma ma dund bul tas sama yaakaar kàttanal ma maraw di yittewoo say tegtal ba faw yaay xarab képp ku wàcc sa dogali yoon ay pexeem neen yaay tonni ni purit képp ku bon fi kaw suuf moo tax ma sopp sa kàdduy seede sama yaram a ngi daw ndax ragal la ragal say àtte def naa njub def njekk bu ma wàccee ñi may néewal sang bi gàddu ma ma am jàmm bu ma ñu beew ñi néewal séentu naa sak wàll ak sa kàddug njekk ba saay gët giim sang bi jëfeel ma sa ngor xamal ma sa dogali yoon sab jaam laa may ma ma ràññee ba xam sa kàdduy seede aji sax ji jëf jot na ñee ngi jalgati saw yoon maa sopp say santaane mu gënal ma wurus ba ci wurusu ngalam moo tax foo tegtale ma rafetlu lépp luy yoonu fen ma bañ sa kàdduy seede kéemaan la moo tax ma di ko toppe xol sa pirim kàddu laay leeral di xelal ku xelwul dama nga nga feet di àppaat ngir namm say santaane eggeesu ma te baaxe ma ni nga baaxook ñi sopp sa tur doo leelal ma samay tànk yaa ko dige te bu ma lenn lu bon man jot ma ci noteelu doom aadama ma mën a topp say tegtal sang bi geesoo ma sak leer te xamal ma sa dogal yoon ay wali rongooñay wali saay gët ndax sàmmeesul saw yoon aji sax ji yaa ko jub te say àtte di yoon yaa santaane sa kàdduy seede ji njekk ak worma ju yaa dama gis bañ yi sàggane say wax xol bu tàng di ma rey sang bi maa ko sopp sa kàddu gi set ni weñ gu ñu xel ñàkk naa solo faale suma waaye sàgganew ma say tegtal sak njekk moo dig njekk ba faw te saw yoon a dëggu njekk rek njàqare dab ma say santaane di sama bànneex sa kàddu yu seede di njekk ba faw may ma ma ràññee ba dund aji sax ji woo naa la wal lu ma mën wuyu ma ma topp sa dogali yoon dama ne wooy wàllu ma ma sàmm sa kàdduy seede dama jëlu di la woo di xaar sa kàddu damay xoole guddi gépp di jàngat sa kàddu aji sax ji sama baat bii teewloo ko sa ngor te musal ma ni nga baaxoo musle rabatkati pexe yaa ngi jege si di nit ñu sore saw yoon waaye yow aji sax ji jege nga te sa santaane yépp dëggu yàgg naa xam ne sa kàdduy seede wax la joo saxal dàkk xoolal sama coono te xettali ma saw yoon dey sàgganew ma ko àtte ma ba jot ma musal ma yaa ko dige ku bon sore sa wàll ngir sàkkuwul sa dogali yoon aji sax ji sa yërmande yaana musal ma ni ko ko baaxoo ñi ma topp ak ñi ma bañ a bare te taxul ma dëddu sa kàdduy seede dama gis warkat yi sibleen ñoo sàmmul sa kàddu seetlul ni ma soppe say tegtal ey aji sax ji musal ma yaa gore sa mbooleem kàddu dëgg la sa ndigal yépp di njekk sax dàkk ay kilifaa ma topp ci dara te teewul ma warmaal sa kàddu man de maa ngi bégee sa kàddu ni ku for alal ju bare fen ma bañ ba sip sa yoon ma sopp juróom yaari yoon ci bés màggale naa ko say at tey njekk jàmm ju bare ñeel ku sopp sa yoon te dara du ko fakkatal aji sax ji sa wàll laa yaakaar say santaane laa jëfe sama xol laa toppe sa kàdduy seede te sopp koo sopp dama topp say tegtal ak sa kàdduy seede fépp fu ma jaar kay yaa ngi ciy gis aji sax ji yàlla na sama yuux àgg fa yow may ma ma ràññee yaa ko dige yàlla na sama dagaan àgg fa yow xetali ma yaa ko dige naa xaacu woyal la yaa may jàngal sa dogali yoon naa woye sa kàddu loo santaane njekk la yàlla na nga ma dikke ndimbal say tegtal laa taamu aji sax ji namm naa sa walla sa yoonay sama bànneex yal naa dund ba màggal la say ndigal di sama ndimbal lajj naa ni xar mu réer gindi ma sang bi sàgganewu ma say santaane de